la formation bu Sédhiou mi xamle tam am na yeneen pexe yu ñuy lal. jàngalekat yi manqué nañu. ñu ngi xaar quota bi nga xam ne moom lañ nara am. ñi ñi ñuy wooyee nouveau sortant. am na stratégie yi nga xam ne ñoo fi nekk. li ci mel ni redéploiement. mais aussi mise en place ay classe spéciale que def euh, classe multigrade yenn saa dañuy jël élèves yi donc euh, def leen ci classe double flux. même daaw ñu ngi fonctionner ak déficit boo xam ne presque jege na ay cent cinquante enseignants. jafe-jafe si ñàkkum kayitu juddu bu ñu nemmeeku ci xale yu bari nekk na tam lu waxtaanee woon. daaw gis nañ ne euh, lim bi euh, woon na lool parce que jege woon na ay euh, ñaari junni xale rien que ci classe cm yi nga xam ne amuñu woon kayitu juddu problème la boo xam ne vraiment bu ñu soxal la ñu ngi wut ay partenaire mais surtout que ñu am li nga xam ne mooy appui wu maire yi pour mën a jël en charge problème yooyu. amoon na ci benn comité départemental de département bu Sédhiou. nga Fatou Abdou ci fonctionnaire yi jàngalekat yi ñoom ñoo ëpp lu ñu leen di fay ñuy faral aussi di kaas seeni ay droit waaye ñu euh, faral di nemmeeku itam ni bu ñu leen yóbboo ci yenn gox-goxaan yu sori ci biir Sénégal dañuy bañ. waaw dañuy bañ te jàngalekat yi dañu bari donc bari gu ñu bari mënuñu quand même 97000 enseignants yoo xamante ne war nañu dem ci classe yi ñëpp wu fi nga xam ne mooy région bu Dakar bari na ñoom nga xam ne dinañ ko indi ci jafe-jafe ci fonction ndax li ñuy demander transfert bari na yenn saa yi dafay nekk sax ñu koy waxee clientèle euh, politique ndax da ngay am mbokk moo xam ne ma nga ministère nga fexee coûte que coûte bëgg a ñëw Dakar jàngale région yu bari di am problème pour am ay jàngalekat déjà c'est un problème mais xadi euh, dañu war a am beneen problème bu ñu lijjanti muy le niveau des élèves parce que gis nañu ne daaw élèves yi toog nañu juróom-ñetti weer yoo xam ne jàngale wuñu ko bu ñu gisee école yi nga xam ne amuñuy jàngalekat yu mag gis école yoo xam ne moo tàmbalee am ci jàngalekat yi ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci école privée yi état war tranché ñu xool condition d'ouverture de ces écoles privées puisque nag dañu nekk ci réew war a naka la réew mi di doxee ñu jox leen subvention boo xam ne ñëpp dégg nañu ne yokku nañ ko ndax ñoo ko jàmbat loolu yëpp état di ëllëg nañu xaar ne seen niveau dafay gën a wàcc. ba tey ci njàng